salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi jotaat nañ ndigal ci sëriñ cheikh ahmadou mbàkke xalifa cheikh saalihu mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér di ñaanal sëriñ touba cheikh mahamadul muntaxa xalisaal kullu murit yal na ko sun borom may foon gudd lool wa ànd ak wér gu yaram ndigal li nag dafa jëm si ci dongoy tarbiye yi dongoy tarbiye yi nga xam ne ñoo mas a jaar ci loxoy sëriñ cheikh moom sëriñ saalihu ak fuñ mën a ne képp koo xam ne mas ngaa jaar ci daara yi sëriñ cheikh moom sëriñ saalihu bokk nga ci xam ne eh, yaa ko tax a jóg woote bi nag lu mu doon mooy mbaddi lim gerte muy bàcc ak jëri ak roñ ngooñ ma ak la ca aju loolu nag moo tax ñu toog fii ci kër Serigne Saalihu Mbàkke Xaadimu Rasuul gi ci jumaa ji feggoo ak Baye Cheikh Dia waaye feggoo ak Serigne Modou Diop ak Serigne Cheikh Sakho ñu fas yéene yëkkati ay kàddu jëmee ko ci liggéey boobu nga xam ne Serigne bi jox na leen ko ca daaree Touba Daaru Salaam Maodo Murid mu war a doon le 26 allahu rabbi ñu bàyyee kàddu gi ak Baye Serigne Baye mi nga xam ne moo koy ubbi aousubillahi mina sheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki jullit yi bokki sëriñ bi mm. ci turu sëriñ bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mii suñu jawrin ci tool sëriñ Saliou bii nu àndak moom nu ñaan saa boroom eh, xéewalal ko yaram wér gi yaram ak yàgg ba mu matal yëpp lépp eh, naal sëriñ Saliou yëpp mu matal ko ba matal ay naalam tan ànd kook moom te daje cee ngërëmal sëriñ Touba eh, suñuy kàddu du ci bari donge yi donge donge yi ni sëñ Cheikh ni sëñ Fallou Galas waxe donge yi jaaroon ci daari sëñ Cheikh moom sëñ Saliou ñoom la jox ndigal ci bàddali Xelkom a ngi ci Lagana ngi ci Touba Darou Salaam a ngi ci waaye nag fii di Touba Darou Salaam ñii ca féete woon ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ko war a baddali ñoo ñoo eh, fi ñii daa doo ngay jaaroon ci daari sëñ Cheikh yi ñoo ko war a baddali ak ak ñëpp ak keneen kuñ ci àndal nag kon ci gàttal rek maa ngi jox ma mat sëñ mat mi kàddu gi mu wax leen ni ni ñu ko bëggee bisimilah barke borom Tuubaa waaw ñi ngi woote ci turu dongay bi yëpp te ka nekk ca bopp ba di jëwriñ ji Serigne Abdou Ndiaye di leen xamal ni baddali bi dañ koy tàmbalee daaray lagan daaray xel comme daaray tubaa Daaru Salaam ñun nag dañ ñoo farale banqaas bi nga xam ni moom mooy tubaa Daaru Salaam du ma layal nag Touba Daaru Salaam waaye damay layal liggéeyu sëriñ dafa dafa dëppoo ak euh, bayitu sëriñ bi muy wax bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiya ndax koo xam ni saa su ne mi ngi woo murit di leen jëme ci liggéeyal sëriñ kooku mbiram mm, doo ko utal ab dayoo da nga ci euh, wax la nga xam rek ci biir nag euh, Touba Daaru Salaam googu nga xam ne fa lañ ñu féetale ñi ngi ciy woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibi yëpp ak fu ci waaye mënti nekk foo mënti féete di leen xamal ni foofa na ko sëriñ bi waxee woon dafa nekk ci xur wi waaye ci tool bi la bokk am na nag ñu ko xaw a réere mbir tuuti ndax dañoo jàpp ni dafa sori waaye soriwul ndax am na mbokk yu may jokal ñu ne ma ndax mooy daara ji ñu wax ci wetu Tamba la nekk daara ji boo rëccee xelkom ab diir bu gàtt rek bu dee bu boo jógee xelkom ba ba ngay dugg biir daara ja tali bu xonq la boo xam ni tali boo xam ne bu ci oto di jaar mën naa daw cent euh, bi ab donga buy jóg dafa war di def àggu téefu donga bi ma ciy jiital moom mooy kuy jóg ku nekk na yor loo mën a def ndoxum naan moo xam looy takk ci sa ndigg la moo xam looy looy wékku la ndax liggéey bi mm, lépp nga fa lii sonal nit ki rek mooy dugg ci biir waar yi ba yàgg nga mat di xaar lu la indil am ndox mooy bu kon booy jóg def euh, yoral loo def ndox loolu dina tax bu la la luy joxe am ndox rombee nga ca caa dolliwaat la ca des nag dañuy jox suñu jëwrin sëñ Cheikh Sakho mu jokkoo ak bokki dëkkandoo ya nga xam ne ña nga ca tundoo jërë ngeen jëfati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi di jokk nuyoo bi ci ñii ñu jiitu muy Baye Cheikh di sof ab suñu nuyoo ci nuyoom di nuyu mbokki tundu Bambougou yëpp ak li ko wër ak mboolem réew mi yëpp ni ko sëñ Modou Diop waxee mooy mbàccum gerte la jëri ko dajale ko def gerte gi ab jal def ngooñ mi ab jal loolu nag du liggéey bu ndaw liggéey la boo xamante ni yaatu na réew ma ñëpp xaj nañ ci ba tax na bàyyiwuñu kenn ginnaaw bawal gi yëpp ñu ngi leen ciy woo di ci woo waa Touba di ci woo waa Thiès waa Louga waa kawlax waa Xabaan waa tund Saalum bi yëpp yëpp Bambuk ak euh, tundu Ndukumaan wi di ci bokk woo itam mbokk yi nga xam ne ñoo sësaloo ca mbokki daara yi dëkk ya sës ca daara nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo bokk euh, na suñ bokki donga yi nga xam ne dañoo bokk pas-pas bokk lépp muy waa kër sëñ Mamor Dendey daaray sëñ Mamor daaray sëñ Cheikh Bindu daaray sëñ Abdou Samad Si booleeg waa Condax waa Midina Cekkeen woo waa Taïf suñ mbokki donge yi fa nekkoon yëpp ak Touba Cekkeen di woo waa Caxaj waa Ribo di woo waa Bokki Joor di woo waa Afe kër sëñ Cheikh Ñang Afe Caaneen waa Kunkung waa kër sëñ Abdou Salaam waa Ngé Touba di woo mboolem rek di tund wala wër daara ji lépp bayuñ kenn rawatina nag biir Touba Darou Salaam di ci woo waa kër Baye Cheikh Ndaw ak ak ak waa Cilla ak ñi dëkkandool ñëpp bàyyi wuñ kenn ak bàyyi seex ak ndaw ñoom ñee ca coono ñoom ñëpp rek ñu ngi leen koy ñu ngi leen ciy woo di woo mboolem ku jege daara ji ñu ngi la ciy woo nga ñëw jàppale ci liggéey ba la ñaar fukki fan ak juróom-benn nañ ñu ko waxee ci weeru tubaab dëppoo ak euh, bisub ajuma ñu tàmbali liggéey bi ci gaaw maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di wax suñ mbokki dongo yi nga xam ñoo nekk ci biir Touba Darou Salam ak Darou Tansil ñu soññal ñu waa réew mi yëpp foo xamante ni suñu tànk mënu fa ak yéen seeni ndaw wala seen communication na àgg ca ñëpp ñu yëgal ko ñëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñu fenn ñi ngi woo ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ni ko sëñ Mat Joob waxee nag Touba Darou Salaam moom boo jógee Touba li la yóbbu fa daara jeyam yóbbu na la euh, bo bo fa ngay jeexale xel koom yóbbuwaat na la Touba Darou Salaam daaru Touba Darou Salaam soriwul mi ngi ci ginnaaw daaru Minam Saalum boo ko weesoo weesu koñub doli ba daanaka àgg nga kon day mel ni daa làqu waaye amul am na yoon léegi bu fekkee da ngaa jóge wetu euh, Koungheul geetim ab ranran ngay ñëw ba taayif diggante taayif daara ji diggante bu gàtt nga ñëw wetu jolof ko itam yoon yu yaatu la am ngir ñëw fa kon ñi woo ñëpp di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Mouhamadou Diop jërëjëf Baye Cheikh Dia ak sëriñ Cheikh Sakho kon mbokk woote baa ngi noonu ñoom dongo yi nag ñu àndandoo di soññi seen kilifa yi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ji di seen doomi sëriñ ak seen bokki taalibe yi nga xam ne jaaroon nañ ci daara ji ndax nee day ndabul xéewal loo xam ne sëriñ bi da leen koo taajal te bëgguñu Abo Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Modou Habib Serigne Abdou Lahad Mbacke moom sëñ Moustapha Caytu Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Bassirou moom sëñ Falilou Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Bousobe Serigne Mamor Mbacke moom sëñ Bousobe Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Bousobe sëriñ Mahmoudan Mbacke moom sëriñ bu soobe ak sëriñ Abdoulahad Mbacke moom sëriñ bu soobe di ci soññ itam sëriñ Xabbaan Mbacke ñaaxar sëriñ Moustapha Mbacke ñaaxar sëriñ Jili Mbacke guube sëriñ Salihu Mbacke guube sëriñ Fallu Bayu Mbeen sëriñ Sidi Boussa Kend sëriñ Abdou Boussa noddukat sëriñ Salihu Mbacke moom sëriñ Modou Mbacke caytu sëriñ Moustapha Abdou Ummi di ci soññ sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Maa Ibra sëriñ Jili Mbacke Penda sëriñ Modou Fall Baye Fall sëriñ Moustapha Fall sëriñ Cheikh Ndigal Fall ak sëriñ Mbacke Fall di ci soñ itam sëriñ Modou Fall moom sëriñ Cheikhouna Fall sëriñ Maam Cheikh Fall Mbawor sëriñ Bada Fall Mbawor sëriñ Sidinaal Fall Mbawor sëriñ Sidi Fall moom sëriñ Daam Fall sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Ibra Njurul sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Modou Fati Xari sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ mo faati Fati Xari seriñ Xaadim Mbacke moom sëriñ Cheikh Fati Xari sëriñ Daam sek Taqe sëriñ maam Cheikh loo moom sëriñ Lamine Lo sëriñ Mourtala loo moom sëriñ Lamine Lo sëriñ Bachirou moom sëriñ Abdoulahat moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachirou sëriñ Abibou moom sëriñ Bachirou Fatixari sëriñ Galas Mbacke moom sëriñ Ba Cheikh Baara Matiley sëriñ Cheikh Mbacke Coobe sëriñ Moustapha Baara moom sëriñ Mour Boussa Dieng sëriñ Galas Mbacke Baara sëriñ Mbacke Baara sëriñ Mbacke Naar sëriñ Abdou Ummi moom sëriñ Abdoulahat Mbacke sëriñ Salihu moom sëriñ Amsatu Mbacke moom sëriñ Abdoulahat sëriñ Salihu moom sëriñ Cheikhouna moom sëriñ Abdoulahat sëriñ Salihu saalihu moom sëriñ daam atta sëriñ seexuna moom sëriñ basiru moom sëriñ saalihu di ci sooñu sëriñ saalihu jaxate mujtaba baay abdoulahat mambuso sëriñ seexuna moom sëriñ basiru roqeya sëriñ basiru daaru rahman sëriñ yadaali daaru rahman sëriñ siidi mbàkke njenne sëriñ Sidi Jenn sëriñ Ibra Jenn sëriñ Mbay Jenn Ndiir sëriñ Sidi Jenn moom sëriñ Abdoulatif Jenn di ci sëriñ sëriñ Fàllu jiite Mboro sëriñ Fàllu jétti sëriñ Fàllu Juuf te jétti Mboro di ci soññi bokki tundu Touba Darou Salaam yëpp euh, ci njiitul euh, ki nga xamante ne bii moo njëkk a jël kàddu de Baye Cheikh Dia ak mbokki dongaam yi mu àndal yëpp ñi ngi soññee ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké liggéey ba nga xam ne moo am ca daara yi Touba Darou Salaam muy bàcc gerte ak jëri ko ak dajale ngooñ ma ak lépp niñ ko sant seen bokki donga yi nga xam ne ñoo nekk Xalkom nekk nekk Lagan ñi ngi ñaan nag lépp loo xam ne Serigne Touba dana ko fay ci liggéey yàlla dana ko fay ci ku liggéeyal Serigne Touba képp ku ñëw Daaru Salaam yàlla na la yàlla fay loola di leen tàllal loxo nag seen bokki donga yëpp nag di ñaan suñu borom mu may ni ñu àgg ci ci jàmm te weesu ko ci jàmm te lépp luñ ci jëlee yàlla na ko yàlla def muy yàggug Serigne Cheikh moom Serigne Saliou jamono ak kilifaam yi mu àndal yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu